ba fi makaanin ci ab place baidin buy aji sori xanit daw ba i walis coow tuxeetu dana wër bixaa ci moom alxadaaiqu jardin ya alxannaaw yi aji sëq almaxroosatu ya diwuñ jëmbët bil azhaari ci ay tóortóor aljamilat yi aji rafet yumkin dana jàppandi alwusul àgg ga ileehaa jëm ci école ba bi suhulatin ànd ku yomb takkoon day nekk daal baa ngi datan di aji sori xam maa walis lépp loo xam ne yul kii mën naa soxlaal mën naa gàllankoor ak tilmida élève ba day njëkk wax fi école bi nekk mu ne école moom li ci ëpp dañ koy def ci béréb boo xam ne day sori coow ak ay yëngut yi doomi aadama yi men day sori marché fépp foo xam day am yëngutu ak i coow yoo wax mën naa yàqal ñay jàng ci ëpp itam buñ ko mënee dañ koy wutal ay jardin yu saq saq yu naata naat di def cee tóortóor yu rafet li ci ëpp itam école ba saa yu ci bëggee dem rek mën caa dem pasaasa ci lu yomb yomb du am dara luy gàllankoor élève bi ci bu ca dee dem baa boog bu dee jàng lu koy tàngal mbaa lu koy yàqal dara daal moom mu ñëw ci ajji saa uha ay xaajam yuq samu def na séddale binaaul madrasati tabaxu école bi alxadisati bi aji moderne mooy bi yees ilaa hiddati aqsaamin jëm ci lu bari ci ay xaaj waxu naa ko nekk na foofee binaa un bâtiment xaasum buy aji jagoo maanaam buy spécial li rawdatil atfaali ñeel jardin d'enfant jardin d'enfant moom miin nañ ko xam ni koy def Tuubaa defe naa léegi am na fa sax mu war a firi rawdatil atfaal dëru gone ya wa aaxaru ak baneen li taalimi ñeel enseignement ba al ibtidaai yi bay primaire wa saalisum ak bâtiment bu ñetteel li taalimi ñeel enseignement ba al ibtidaai yi bay primaire alxaali bi aji kawe wa raabihun ak bâtiment ñeenteel li taalimi ñeel enseignement ba ak taanawi yi bay secondaire nee na bu dee suñ jamono ji école école moderne léegi moom dañ koy def ay xaaj xaaj am na ci bâtiment boo xam ne dañ koy def jardin wu gone yi am na benn xaaj boo xam ne dañ koy féetale enseignement primaire maanaam njàngale mi féeti suuf ak beneen bu buñ jagleel njàngale mi nga xam ne ba tey suufewu ne bee nga weesu waaye moom itam primaire la daa gën a kawe rek bële am beneen xaaj boo xam ne dañ koy defal secondaire mooy enseignement bi sës ci primaire fii rawdatil atfaal yi ci jardin d'enfants yi bala ba nga ne ci dëru gone ya najidu danoon fekk xurafal alxan bi sàmbar yi foyukaay yi wasinahaat yi ak xeeti xarala yi al awwaliyati yi primitif mooy yi ko jum njëlbeen rek fañ wax ne mooy jardin gone yi dañuy day am ay néeg yoo xam ne moom ay xeeti foyukaay moo fay nekk yu gone yi mën a foye waaye daañu wax def ay xeeti xarala yi nga xam ne moom lay njëkk jàng ci kuy jàng métier dañ ko fay def ngir mën koo jàngal gone yi
fil qismi ca xaaj ba wala ca wàll ga al ibtidaa yi day primaire wala nga ne fil qismi ca classe ba al ibtidaiyi
najidu danoon fekk alxurafa sambar ya alxaasata yi aji jagoo bidroosil asiya yi ci leçon yi yëf yi wa taarix yi ak histoire wal géographie ak géographie maanaam wàll gi nga xam ne mooy enseignement primaire du tee mu am ay sambar yoo xam ne dañ cay jàngale lu mel ne histoire ak lu mel ne géographie ak dorosul asiya maanaam yi yàlla sàkk lu nekk ñu koy jéem a xam ak mbirum lu mu demee
wala yëbu dañuy fekk xaaxaatir riyaadati salon yi sport al badaniyati bay ko dug yaram wal musiqa ak musique wal xafalaati ak xeeti ndaje yi mooy salon yi ndaje yi alxataabiyat yi oratoire alxafalaat alxataabiya dana ci indi ab leçon bu ci aju wax la lañ ci jublu ndax moom dañ cay tàggatu ba mën a wax wax yu rafet rafet yu am ndam yu mu naw ni yéem wat tonti li yetti ak yi ko jub théâtre alxaflatu at tamsiliyatu moom la ñu wax séance théâtrale séance théâtrale
ba tey daañu fay def ay salon yoo xam ne dañ fay mën a tàggat yaram ak lu aju ci wàllu musique ak lu aju ci wàllu ndaje yi nga xam ne dañ cay jànge li ñuy wax oratoire maanaam lu ñuy mën a lu ñuy wax discours ak lu mel ne campagne dañ koy jànge ak wàllu théâtre ak tamsile moom mooy théâtral day am salon yoo xam ne dañ koy jagleel wàllu théâtre kama najlu ni ni fekke al masaniha ay atelier al hadisati aji moderne allati ya nga xam ne toal li mu danañu jàngal ak tilmiita élève ba asinaata métier ila jaanibi taalimi jëm ci wàllu njàngale ma annadari yi mi théorie maanaam aljaanibu annadari yu mooy théorie ni la ko jàngale rek nga xam ko noonu ci këyit gi bokkut ak aljaanibu alhamali yu nag mu ñuy wax pratique dañ ko jàngal ba nga xam ko ci këyit gi ñu wëlbati ko jàngal la ko ci nga jànkonteeg moom mel ni tey boo doon bëgg man oto ak man koo dawal yooyu di la koy jàngal ci téere bi ak wax la code be yooyu loolu muy wàllu théorie gi waaye na nga ànd ak ki la koy jàngal nag di def muy gis ak ñu lay laaj nag ci fi ngay aw loolu mooy wàllu pratique bi kon foofu ci enseignement primaire daañu fa def ay ateliers yoo xam ne yu moderne lay doon xam ne ñu xamal élève bi xeetu métier bañ ko yemale ci njàngum kayit bi rek fil aqsaam yi ci section yi ak nawiyati yi secondaire naju danoon fekk al muxtabaraati ay laboratoire al ilmiyata yi ko jug science wal maktabaati ak ay bibliothèque al qayimata yi aji foor wa xurafal mutaalaxati ak sàmbari liir wa riyaadati ak sport wal xataabati ak art oratoire art oratoire wa xurfatan ak sàmbar xaasat bi aji jagoo wala boog bi spécial li xardil ashritati ngir wane film ya alximiyati yi ko jug science waaw nee na boo demee ci classe yi nga xam ne la neexee ne fil aqsaam yi ci classe ya classe yi nga xam ne classe secondaire lañu moom daañu fay def ay labo ay laboratoire yoo xam ne dañ ciy gëstu wàllu xam-xam ak bibliothèque yoo xam ne day am njariñ lool ak ay chambre yoo xam ne boo bëggee lire ak wàlluk sport ak wàlluk art oratoire ak benn néeg boo xam ne moom dañ ko def ngir bëgg a wane ay film yoo xam ne ci wàllu science lay ajoon fil madaris yi ci école yi an nisfi nahariyatin yi ko jug genn wàllu bëccëg école yi nga xam ne nga fay yend waaye doo fanaan najud danoon fekk najudu binaan bâtiment li tanaawul gada ngir mën a jëfandikoo añ waxil madaris yi ci école yi al layliyat yi ko jug guddi na ji doon fekk abliyatan ay bâtiment xadidat ni aji bari lil manaamati ngir nelaw wa tasliyati ak miisal xol muy bànneexal xol daa am école yoo xam dañuy yendu rek kenn du fa fanaan yooyu moom boo fa nekkee fa ngay añee am école yoo xam nag moom guddi dañ fay fanaan kon faaw mu am foo xam ne fa ngay tëdd ak loo xam day miisal sa xol boo bëggee miisal sa xol al idaratu direction al mudir mooy directeur fonction bi ñu ko jox nag moo tudd al idaratu kullu binaayin bépp bâtiment yajibu dana war an yastamila mu làmboo xalaa xurafin ci ay sàmbar lil mudiri ñeel directeur ba wa wakilihi ak adjoint wa naasiri ak surveillant ba wa xalaa xurafin ak ci ay sàmbar lil muallimina ñeel jàngalekat yi wa mislaha ak seenum kem wala boog nga nga jar wa misliha ak seenum kem lil istiqbaali ngir réception nee na bâtiment bu ci ne faaw dana am ay néeg yoo xam nañ ko jagleel directeur bi ak adjoint ak surveillant bu école bi dana am yeneen néeg yoo xam ne jàngalekat yi lañ ko defal dana am yeneen néeg yoo xam ne dañ ko def ngir teeru ñi fi ñëw muy réception bu ñëw ci asihatu wàllu wéru yaram fil madrasati nekk na ci école ba alhadisati bi aji moderne mustawsafun dispensaire li mu xaalajatil amradi ngir faj jàngoro ya aljasadi aljasadiyati ko jug yaram wa amradil asnaani ak tawati bañ yi kama yekkoon ni ki mu nekkee xunaaka foofee saydaliyatun ab pharmacie li talbiyati talabaatil atibaa yi ngir mën a wuyu cakkutee fi médecin yi al mustajalati yi duñ yàkkamti al mustajalati al mustajalati naat la ci talabaati moo tax daa wax ne école yi madara école yi yees yi moom fi mu toll day am dispensaire boo xam ne dañ ko fay def ngir mu mën a faj tawati yaram yi ba ci tawati bañ yi sax dana am pharmacie boo xam ne itam bu amul garab yëpp itam yañ gën a yittewoo xam ne médecin daañu ko yàkkamti moom dana fay am ñëw nag ci almalaax yi bu fowukaay yi lil madrasati ñeel na école ba alxadisati bi aji moderne xiddatu malaax yi ba lu bari ci ay fowukaay awaluha aji jëkk seen almalxabu mooy fowukaay ba alxamu bi public boo xeetu dana war bi ci moom al asjaaru garab ya wal azhaaru ak i tóor tóor école yees yi xew ci jamono moom dañ fay def ay fowukaay yu bari dana am fowukaay boo xam ne moom ngir ñëpp la ñu warale ko ay garab ak i fleur fii jaani bi nekk na ci wàllam saqifatun benn tuwaatiir tuwaatiir maanaam foo xam nañ fa mën a fegoo tàngaay ak taw bi mooy taq taq yi bopp dana fegal ak talaamisa élèves ya xaraarata sem ci tàngaayu jant bi wala matara ak taw bi daañu fa def lu mel ni ab jànk daal lu mel ni mbaar moo xam ne bu dee taw mbaa mu tàng gone yi mën faa dugg élèves yi mën faa dugg wa fi jamihi jawaanibihi nekk na ci mboolem ay côtéem maqaaxidu ay banc yajlisee dana toog xale xaaj seen kaw ak talabatu étudiants yi wa misluha ak yu mel ni ñoom yajlis dana toog xale xaaj ci ñoom almuraqiboona way seetaan ñi dañuy def ay banc yoo xam ne étudiants yi ñoo fay toog te feneen yoo xam ne nag moom ñi nga xam ñooy seetaan pome yooyu ñoo fay toog kama an hunaaka naka nga xamee nekk na foofee malaaxi ba ay fooyukaay di kuréetul xadami ñeel football kuréetul xadam moom mooy football miin nañ ko wat taayirati ak woley bol woley bol mooy kuréetu taayira wa sallati ak kuréetu salla mooy basketball kuréetu salla moom mooy basketball wa kuréetul madara bi ak li wax tennis tennis miin nañ ko wa kurati taawilati ak tenes bu taabal ak taawilu taabal lay firi kuratu madrib kese moom mooy tenes tenes kuratu taawila nag mooy tenes boo xam ne day am taabal wa malxaban ak foofukaay xaasan bi aj jagoo mbaa nga ne buy spécial li alxaabil xuwa ñeel foy doole yi waaye dañ koy wax athlétisme athlétisme xeeti fooy am yu doole nga ni ki yëkkati lu diis bàyyi mel noonu alxabul xuwa athlétisme dañ koy wax achonru ata mën naa danaa mébét an akkoon mu nekk taaliban di ab étudiant fii ihdal madarisi ci benn ci école yi alxadisati aji moderne kay u saqifa ngir ma jubanti xaq lii sama xel may wax fudd rek kay u saqifa ngir ma fudd xaq lii sama xel wa uqawiya a ngir ma dëgëral jismi sama yaram doona taabin ci lu coona wa irxaqin ak fatigeel sa bopp wa irxaqin irxaq mooy togg coona mook taxab sorewuñ irxaq muy coono bu rëy rëy nee na man daal école yi moom xemem naa lool doon ci ku fay jàng di étudiant ndax danaa ci mën a defar sama xel man cee defar sama yaram te duma sonn coono boobu ñëw ci at tawsiya aahin wooy kam lu bare bari uhibbu danaa sopp madrasati sama école bi wa kam lu bare bari atam mën naa danaa mébét an takkoona mu nekk xadisatal binaay di aji yees ab tabax jamilatu tartibi te aji rafet ak rañsele tudaahi dana nuróonteeg azamal madarisi gën jaare yi école yi anaqatan ci ak yéemu wa jamaal na ak ci ab taar mu ne daal ni mu bëggee sama école bi doy na waar su ma sañoon dañ koy tabax tabax bu yees bu rafet a rafet ba mel ne yeneen école yu mag yi mag mel ne école yi gën a rëy mel na ñoom ci ak yéemu akub taar awalan at tawajjuhu jublu ilal madrasati fi awali sana ak mushahadatul madrasati jàkkaarloo école ba wakam lu bare bari kaano nekkoon na sóor yi sama mbégte aziman di aji rëy fi awal yawmin ci aji jëkki bis min ayaami haadihi sanati ci fani mili at indama shahadtu ba ma jàkkaarloog madrasati sama école bi xan bon dina wëlis ak sori waxaddu tuliyat te pentreef na ko bitilaayin ci pentiir jamilin bi aji rafet fii fas li say fi ci jamono été bi mu ne daal li nga xam ne moom laa béye woon mënuma ko wax ci bis boobu nga xam ne moo njëkk ci fani at mi daanaka ndax booba laa gis booba laa taxaw ni nga di xool suñu école bi seen ñu peintre ko peintre bu yees bu rafet a rafet ah ndeke bañ tolloo ci faslu say fi dañ ko peintraat peintre bu rafet rafet ba ma ko séenee daal li nga xam ne moom laa béyee mbégte bi mënuma ko wax wa ma in wati at dëggut rijlaaye sama ñaari tànk ardal balxa bi suufus fowukaay ba xataa foo jiitu ba betteef ma bi ma shaahida ci ay spectacle maanaam ci ay yu ñuy seetaan yooyu gis mala at yooyu feesal nañu xalbee sama xol faraxan ci mbégte wa xayaatun ak ci ak dund xam nga daa waxoon naka mu ko séen rek ñu peintre ko peintre bi yees rek dafa bëgg lool bu mënta wax mbégte ma mu ne nag baa àggee ba sama ñaari tànk ne tegg ci suufu fowukaay ba li ma gën a bett mooy damaa gis loo xam daal moo ne bu ma jàkkaarloo moom daal ya ma gis daal moom feesal na saa xol del del ci mbégteeg dundalaat sama xol yooyu lay bëgg a wax nag spectacle yi muy bi ma shahid yooyu mu wax yooyu ko bett ci ba mu ko gisee te xolam fees ci dell ci mbégteeg dund moom lay wax benn benn fahata li malhabun fowukaay la xaasum buy spécial di kurati sallati ci basketball mu ne gis naa foofukaay boo xam nañ koo jagleel moom basket ball arduhoo suufam sa mustawiyat aji yemoo la wa masqoolatun te lu ñu rataxal la mbaa lu ñu xacc la wa haatihi lii saqifatun ab tuwaatiri la jadidun bi aji yees min baatoonin bu bàyyi ko ci bâton musallahin bu di buñ armé bat béton armé nattaqi ba banan wattandikoo bihaa ci moom miyaaxal amtaari ndox yi taw yi fi faslu chita yi ci buñ tolloo ci faslu chita waxu naa fii waxu naa ko ak foofule musibat sampeef na manaa biru ay turbine xaasat ñu spécial yajlis yooyu dana mën a toog xalehaa ci seen kaw almuraqiboon way seetaan ñi li yusrifoo ngir ñu mën a tiim xala talaamidi ci elew yi fi asnaa illahi bi ci biir poma amal madrasat ndaal école bi ci boppam faxaddu toliyat pentireef na abwaabuha ay buntam wa masaarihu nawafidiha ak bateau yi ay fenêtre am bëccilaay ci peinture al asraqi bu aji bula ne moo ne yuru damaa daal di gis fowukaay bi nga xam ne fi lañuy defee basketball suuf sa dañ ko maasale rataxal ko ma gis fa benn mbaar wala benn jànk boo xam ne bu yees la ñu liggéeye ko ci béton armé nga xam ne bu tolloo ci faslu ci ta muy taw bu dee ci ñoom foofu day taw daañu ci mën a seelu taw bi boo xoolee fu jege ak fu xaw a sori da nga gis ay tribune yoo xam ne moom dañ ko faa def ngir bu gone yi dee foo am ñëw bëgg a seetaan nag ñu may fañ fañ war a toog ñoom ñiy seetaan waaw foo ñu faa def ay tribune yoo xam daañu fa mën a toog di seetaan gone yi ñuy foo jëmi école bi ci boppam dañoo pentiraat bunt yi pentiraat bateau yi fenêtre yi fenêtre yi ubbikoo ci ñaari bunt yépp dañ leen pentiraat peinture bu bula taalisan nag wasful madrasati melal école bi mina daax bi ci biir tartibuha ak rancaleem ak mata ana lan xolliqa ajeef na ko xalaa judduraani xaay ci ay mbiram yooyu mooy nekk ci dog bi ngay bëgg a dugg wa indama daxaltu ba ma duggee xaaxaati darasi salon yi leçon yi mooy salon saal yi ñu jànge nas yitu fàtte naa maara aytu lépp la ma gisoon filmal xabi ca foofu kaay ba id ngir wajattu fekk naa arbal finaa yi suufas ëtt ba wa judraanahu ak ay miiram wa saqfahu ak palafon nazifat nañu aji set jiddan lool xadaaxan mazahiri sinati lu bokkut ak feeñukaayu taar ba allati taar ba nga xam ne imtaasat ràññikoo nañu bihaa ca moom nee na bi ma nee yuluf nag dugg ci fi nga xam ne fi la ñu war a jànge moom li ma la waxoon léegi na la moom laa njëkkoon a gis bàyyi loolu ak si moom ci fowukaay yow dama ko mujj fàtte ndax li ma gis nii fàtte loo na ma loola ma daal di gis foofu suuf si ëtt bi ak miir yi ak plafond bi yëpp yu set wecc wecc lu bokkut ak nag décor yi nga xam ne ñoom lañ ci def mu koy rafetal fahaas yi al alaamu mooy drapeau ya al lubnaaniyatu yi ko jóg Lubnaan taxtal lu dalañu occupé madaaxilu sufoo fi buntu kalaas yi waxaas yi rusoomu rijaalil watani mooy dessin yi góori réew mi almuxlisiina ña di way sellal seeni dessin tantasifu dana diggu aljudraana miir ya wal xaaxaati ak salon yi nee na booy dugg rek da nga daal di gis drapeau yi réew mi seen réew dafa dëkk daf mooy Lubnaan koy wax Liban dañoo am drapeau yi moom lañu def ci buntu classe yi mu ne nga gis itam ñi nga xam dañoo bokk ci waa réew mi tey ñu siiw ñu am daraja liggéeyal réew mi ba réew mi fonk leen nga daal di gis seen dessin moom itam ñu def ko ci digg mur yi ak digg salon yi daxaltu tàbbinaa as safa classe ba fa isa bi taawilaatihi am ti lu may mayam ci ay taabalam nazifatul ñu aji set lammaaxatul tey melxati waa kon wa hada lawhu te bile tableau al aswadu bi aji ñuul mooy tableau noir bi xadd tuliya pentireef na ko bi sawaadi ci ak ñuul sayfan ci jamono été amma maktabul muallimi ndaal béréb jàngalekat bi falaa yoqi lu du yées rawxatan ci tiit lépp taar wa it xaaral ak ci ak xereñe xan makaatibil manasili walis bureau yi kër ya alfaxmati aj rëy dama ànnaxoo nit nga xamee ne moom yaatal yi dana yéeg mim baran ab tirbin xashe bijan bi ko jug dénk murtafean bi aji yëkkati ko nee na bi ma duggee ci biir classe bi dama daal di gis taabal yi nekk ci biir ñu set wecc di melxati ma gis tableau noir bi ñu peintre ko peintre bu ñuul bi nga xam ne mooy tax ñu mën cee bind ah ma gis bureau jàngalekat bi yeesul benn yoon bureau yu mag yi nga xam ne moom nga gis ci xeeti ministère yi ñooñu te itam dañoo jël taabalam boobu muy bureau bi teg ko ci kaw tribune boo xam ne tribune bant la buñ yëkkati mu jëm ci kaw an nihaayatu na mi bëgg a ñëw ci yemukaay bi mooy tamanniyaatu ka say mébét alhaasa ndax lii kulluma mooy lépp li nga xam ne yumkin dana jàppandi islaahoo ak defaraatam faqa dong ndax defaraat yi nga wax rek ci lañ war a yem wala mënees na ko weesu xaas yi yi baadul islaahaat yi mooy lenn defaraat yi allët yi nga xam ne àdd xalat xaa dugal na leen idaaratu madrasatina direction sunu école bi xalal binaay ca tabax ba walakin ni waaye man kuntu nekkoon naa ata mën naa di mébét an araama gis xaaxa tar riyaadati saalu sport ba achata wi yeta bi ko jug sedd alkubra bi gën a rëy allati bi nga xam ne taalama mën naytu yàggaana ma méetloo nafsi sama bakkan bi mushahadatiha ci jàkkaarloog moom wa kuntu nekkoon naa it atta mën naa di mébét an ushahida ma jàkkaarloog xaaxatal muhaadaraati salon bu xeeti conférence yi al muhaadaraat ay conférence wa tamsil ak théâtre wa cinéma ak cinéma allati ya nga xam ne nax nu nun bi achaddil xaajati nekk nañ ci gën jaatarug aajo woo ilayha jëm ci ñoom fa xasa an tataxaqaqa xëy na lee mu sotti haadihi tamaniyaat yu lay mébét fil mustaqbali ca kanam incha allah ndem soob na yàlla
dane yi mu jot a wax mooy yenn defaraat yi nga xam ne ñi jiite école bi jot nañ koo defaraat ci diir boobule mu ne waaye nag am na yeneen yoo xam ne doon naa mébét lool ñu taxaw ci defar ko bokk na ca saal bi nga xam ne moom la ñu def sport bu dee ci jamono yi sedd saal bu ñu defee sport ci jamono yi sedd yàgg naa ko mébét lool bëgg ñu defar ko ba teg ci sama bët ba tey it saal boo xam ne ci la ñuy defee xeeti conférence yi ak xeeti théâtre yi ak sax cinéma
yooyu yëpp nag ma sañoon fekk ñu defar ko fi baa gis ko ndax xam naa ne aajo woon nañ ko waaye nag àdduna deful lépp sotteendoo benn yoon xëy na mën naa am ci kanam yooyu yëpp mu dikkee fekk ko fi mu sotti incha allah al muayanatu seet ba ab tibbiyatu bi ko jug médecine dañ koy wax al muayanatu consultation ab tibbiyatu bay médical maam docteur bi seet ka tawat ba xam lu ko dal intishaarul amraadi tasaaroog tawat ya lañuy njëkk a wax al insaanu nit muharradun ku ñu gaaral la lil amraadi ñeel ay tawat bi suuratin ci aw melo daaimat muy aji sax nit mën nga ne saa yu nekk rek tawat mën na koo dal ci coobare yàlla jërut mi wóolu ne tawat du ko dal mën na koy séentu rek yataxamalu dana yenu ak talaamiidu elew yi al mujtahidoona ñi di way farlu amraadahum seeni tawat yatawajjahoona danañu jublu ilal madrasat jëm ci école ba kay laa yu dayyixoo ngir ñu bañ a sànk duroosahum seeni leçon nee na élèves yi nga xam ne ñoo bëgg njàng mi lool te farlu ci léeg-léeg sax ñu dem école te xam ne ni waruñu ñu ngi yóbbaale ay tawat te tawat yooyu bu ñu demee mën nañ koo wàll ñañ fay fekk waaye bëgg njàng mi day tax ñu dem école yóbbaale fa tawat yooyu yabu suqu dana tifli baadul marda lenn ci maladie fil malaxa bi ca foofukaay ba tu jaffifu dana wawal asam sujant bi bu saaxahum seen tiflit lësi tiflit wa nga xam ne yaxmilu dana mën a yore al malaayina ay millions yi millions minal jarasimi ci ay microbe yarkudu dana daw ak talaamiidu elew ya yutiroona danañu jeqi alxubaara pënd ba yaxmiloona danañu yenu alxadduwaa wàlle ga ilaa rifaaq yi jëm ci seeni camarade ashaabil ajjisaami ña di waroom yaram assalimati aj mucc
mu ne ñenn ci ñi tawat bu ñëwee école ba ca fa ñuy foye xëy na ñu tifli tifli yooyu ñi tifli mën naa amee xeeti ay microbe maanaam xeet doomi jàngoro yu bare bari ay millions yi millions mën naa nekk ci seen tiflit yooyu su jant bi walee tiflit yooyu nag gone yi fo di daw seeni tànk day yëkkatiwaale doomi jàngoro yooyu mu naawaale ci pënd bi su ko defee nag doomi jàngoro yooyu ñuy wàll ay jàngoro ñi nga xamee ne dara dalu leen woon nga xam ne kon ñi amee ay jàngoro xir ci njàng mi ba ñëw école buñ génnee ci bitti fa ñuy fooyee ñu tifli tifli yooyu amee ay millions yi millions yi microbe maanaam lu mën a sabab jàngoro te vidéo yi su woowee gone yi daw ak a foo jeqi pënd bi doomi jàngoro yi jugaale dal di naaw loolu mooy indi ñi amutooni jàngoro sax ci élèves yi dal tàmbalee am ay jàngoro
yusaafihu dana saabuxanteeg ak talaamiidu élèves yi almusaaboona ña di ñuñ jot bi amraadu xuyooni ci ay tawati bët aw bil jarab yi wala ci ràmm mën naa am ñu saabuxanteeg rifaaqahum seeni camarade yan xuloona danañu toxal ilayhim jëme ci ñoom aljaraasiima microbia yusbixoona danañu xëy marada di way tawat mislahum kem ñoom ba tey nee na élèves yi nga xam ne dañoo amee jàngoro yu bët mbaa jàngoro bu nekk ci deru yaram wi mën naa am ñu nuyonteeg seeni moroom joxante loxo rek fi saasay saasa daal di wàllu seen moroom yooyee jàngoro jooju ndax doomi jàngoro yi ñu ko wax microbe day bàyyikoo ci ñoom daal dem ci seen moroom yooyee ñuy nuyoonteel